méga, mes amis, c'est Rita Paradis Massaï Balago Faramaren qui est là parmi nous. yenn sénégalais yenn laay waxal bàyyi leen soxor iñaan iñañati nee naa la nit ki ba mu juddoo la yàlla di def li muy def ci moom ba pare te nee naa la judduwuñu rek am li ñu am nit nag boo yaakaaree ne la nit ko am yaa ko def ci moom yaa ngi nax sa bopp ndax ñun dañu raam rampe ba yegg si fi ñu yegg si rek yàlla daal di ñuy may li ñuy li mu ñu may kon nag nit waroo toog fa nga toog yaakaar ne li nit ki am rek yow yaa ko def ci moom wala yaa ko ko may boo ko yaakaaree ndax nga sa bopp fii lu fi waaye am rek yàllaa la ko may ak sa liggéey ba nga liggéey ci moom ndax nee naa la boo defalee nit ñi lu baax rek yàlla daal di lay fay te nee naa la ci jàmmi nit ñi nga mën a amee jàmm kon yéene wante leen jàmm di defante jàmm ak salaam waaye boo xëyee nekk ci deru nit wala nga nekk ci sëriñ di ko liggéey ndax mu tardé wala mu dellu ginnaaw rek yaay nax sa bopp parce que yow yaay dellu ginnaaw nee naa la àddina balu teñ si la loo def ci nit rek ci yow lay dellu siwaat kon yéene wante leen jàmm te nit ki bu amatee dara rek nga daal di ko koy yéene waaye nit am dara sa xol di ca bon ngay iñaan foo toog naan la mu am maa tax mu am ko ba mu nekkee nii amul woon dara ba mu melee nii amul woon dara ñun ba ñu juddoo amuñu dara àndaale dara li ñu am yëpp yàllaa ñu ko jox ku yaakaar ne nag la nit ko am yaa ko def ci moom yaa ngi nax sa bopp yéene wante leen jàmm seen ndax jàmmi nit ci jàmmi nit nga mën a amee jàmm boo yéenee nit ki jàmm rek dangay am jàmm waaye saa yoo ñàkkee yéene nit jàmm rek nee naa la yow doo am jàmm sa xool day tàng di bon nit ka di avancé di dem te doo ci mun dara kon sama gars yi yéenante leen jàmm rek yàlla daal di ñuy defal jàmm ñun ñëpp ak sutura ak teraanga ah I love you so much thank you